mën leen delloo seen doom fan ak fan la yaa ngi ñu ngi ñu euh, a wax ak yow. ci keroog bi ñu uh-huh. nee. Euh, uh-huh. Mouhamed ndaw si nangu na ni moom juru ko. Uh-huh. donc après lu ca xewaat ba tey jii nii ñu yëkkati Mouhamed delloo la ko. waaw. salaamaaleykum. di nuyu auditeurs Zik Sénégal. di wax ne alhamdulilahi rabil alamin di sant yàlla bu baax a baax a baax si bi ñuy jotaatee Mouhamed Diouf mu ngi nii toog sama wet di wax alhamdulilahi rabil alamin euh, ndax démb lañ ñu convoqué woon mhm. ci tribunal bi ñu delloo ñu Mouhamed Diouf pour wan ne yéen ko jur à cent pour cent mhm. parce que au début femme bi dafa taxawoon ne opposé wu mhm. ne doomam la à la fin mu avoué ne doomam boobu sax man yaakaaroon naa ni dinañu delloo Mouhamed mhm. waaye comme yoon dafa sew mhm. yoon ne dafa bëgg lu gën a leer bala ñu leen koy delloo mhm. ci lañ proposé test ADN bi ñu def ko bañ defee test bi aussi tamit boobu ba léegi ñu ngi ci topp di xaar di xaar di xaar di a yaabante nañ ci Thiès fois bëggoon nañ ñu ko delloo avant test bi di génn parce que dañ ñëwoon am nañ yaakaar am nañ firnde ne yéen a ko jur mais li ko mën a prouver mooy test ADN bi bu génnee mais su ngeen bindee benn demande dinañ leen delloo xale bi en attendant test bi di génn di prouver définitivement ne seen yooyu yëpp nit nekk ci bi taw di bind bind demande bi def lépp lépp pour jot Mouhamed mais yàlla dogal ko ba bakki démb daal lañ ma woo ne ma test bi génn na convoqué ñu ñëw ñu ñëwee tamit nee nañu test bi confirmé na à quatre vingt dix neuf virgule quatre vingt dix neuf pour cent. Mhm. la. ne sa doom la. waaw ñu remettre ñu ko ci bureau procureur général bi. Mhm. devant le commandant de la brigade de recherche Thiès. Mhm. devant la représentante euh, de AMO. ak euh, procureur bi. ñu remettre ñu ko démb ci ay quatorze heures. léegi ci dossier bi euh, amul lenn loo xam ni révélé nañ leen ko ci côté femme bi naka la def ba jël Mouhamed ak itam ci yenn loxo la jëlee Mouhamed. non non pas encore pas encore. waxuñu leen dara. non non pas encore sooru femme bi aussi xamu leen ko. turu femme bi. soor bi maanaam femme bi la ci ci ci la ci nan la nekkee jamono ji lu mu nekk. waaw waaw mi ngi ñu jàpp wala bàyyi nañ ko wala. mi ngi jàpp mi ngi ñu jàpp. mi ngi arrêté mhm. ak euh, agent municipal yi nga xamante ne ñoo dafa doon kay ji. Mhm. ñoom ñëpp ngi jàpp. ñoom ñëpp jàpp nañ leen. waaw jàpp nañ leen. en tout euh, mën nga ñu wax ñaata nit ñoo ñoom lañ jàpp jamono ji ci dossier Mouhamed Diop bi wala xamoo ko. pour l' instant daal pour l' mhm. ni may wax ak yow daal xam naa ni jàpp nañ ci ñett nit. trois personnes. trois personnes muy femme bi ak ñaari agent yi mu wax ñoo ko yombalal moom kayit. jàpp nañ mhm. euh, ban yëg-yëg nga am laaj bu mujj bi démb bi biñ la delloowaatee sa doom mu del say loxo. waaw am nañ ci mbégte ak kontante. ak ak sant yàlla bu baax. surtout mhm. loolu sant yàlla bu baax a baax a baax ndax metti woon na lool. Mhm. nga wër sa doom juróom-ñaari weer. Eh. nga ko mu nekk si loxo yoon aussi tamit mu la góosi jot te yow mi nga xamante ne yaa ko jëm mu leer na la sa doom la amoo si fig saaka. Mhm. waaye ñoom ñi nga xamante ne ñooy yor wàllu yoon tamit ñoom peut-être lii lañ ci bëggoon. mu gën a leer kan mu ñëpp leer ci ñëpp. Mm. ba tax na ñoom peut-être loolu laa jàpp ni moo waraloon doxalin bi nga xamante ne. moo ci nekk. mais démb moom wax dëgg yàlla kontaan nañ lool yaayam kontaan na mbokk yi kontaan na famille bi kontaan nañ l' ensemble bi yëpp kontaan nañ ndax benn yéene bi lañ amoon. mooy Mouhamed Diol dellu si ay waajuram. alhamdulilah kon monsieur Diol ñu ngi lay jaajëfal. waaw ñu ngi leen jaajëfal di gërëm nag. Mhm. Sénégal gi yëpp. Mhm, mhm. amul xaaj amul seen. adduna bi yëpp ñu ngi leen gërëm ndax appel fu nekk lañ koy jotee. di gërëm waa Ziguinchor bu baax. di leen gërëm ji leen sant yàlla dafa leen jàmm yàlla yokk leen yàlla yéen a xam ci ngeen bëgg yegg yàlla yeggale leen amiin amiin amiin amiin yëpp yëpp mm-hmm. yëpp mm-hmm. mm-hmm. mu ñu seen fay ndax nit def na ci alalam yëguñu ko nit fanaane ne fanaane toog bi ci na ci te ko loolu lépp nag mënuñu leen ko fay dañ leen yàlla rek yàlla fay leen ci gënuñ fay. Mm-hmm. yàlla bàyyi leen fi bañ fekkee njariñoo Mouhamed Dione. amiin amiin amiin mën nañ ko yàlla mën na ko yomb na ko yàlla na ko yàlla def. amiin di gërëm ñëpp daal wax dëgg yàlla sunu sunu sunu sunu sunu gërëmte daal. Mm-hmm. mën naa ni am na fu muy commencé mais amul fu muy yem. ndax mm-hmm. ñu lim. adduna bi yëpp daal ñu ngi leen gërëm di leen sant gërëm mbokk yi bu baax di gërëm waa Pikine bu baax a baax a baax a baax. gërëm waa gox bi ma nekk gox bi ma nekk mhm. taxaw nañ ci taxawaay boo xamante ni maara day émission man daf ma sax mu ngi yëm ñëpp dañ ko jël def seen yëfu bopp waaw waaw bàjjen gox yeeg ñëpp kenn desul mhm. su may lim yàlla xam ne la mën ma pare mhm. peuple Sénégal bi yëpp daal jërëjëf ngàcce ngalaama sant nañ leen gërëm nañ leen bàyyi la yàlla nag jaajëf monsieur Dior jërëjëf jaajëf monsieur Dior ñu ngi lay sant di la gërëm yow it ci disponibilité bi waaye dem di ñaanal Mohamed gudd fan bu ànd ak wér lool. yal na ko yàlla defal. dossier bi dafa ma xaw a dafa ma xaw a dépassé